ngeen jël combat bam tane mën mun tay sa mbeur la digeen numéro 2 ciow li bëri na ci parce que bëree na ak Sène bëri waat ak mom eh, tay ñu bëri nan lamb joj gis ñu ci lak biat ci bëri ay sens ba fiñ koy tek moy combat yu mujj nim ko bëree dafa dafa dafa dalul xel lan nga tontu ci lool non li lay wax moy yalla baxna parce que combat la mom damay ñaan rek yalla suñu borom dafa jàmm rek ba combat bam wallahi ñaan eh, ko ci fo nga leral daari wax par rapport ak sa mbeur wa ko lo bëgguma leral sa mbeur ni mi bëree yow yow yow combat yi la dëggeer bëri ak Eumeu Sène la dëggeer mo bëri

ci la am seen am deuxième suubul xam nga lamb ji xaw a demee ni mu demee. Hmm. mais da xam ne combat boobu yëpp Eumeu Lac de Guiers moo ko bëree sérieusement parlé. Ah, moo ko bëree mais combat yu mujj yi mujjee bëree digganteem ak Boy Niang digganteem ak Modou Lo tey manque d'initiative parce que dañu saan Lac de Guiers boo am teen tey mun nañ ni sax yow yabewuñ ko dara parce que dañu saan ni stratégiquement andiwul dara ci stade bi. non xam nga xam nga xam nga xam nga àdduna moo demee noo xam ni nit ñi bon léeg dañuy juum quoi juum day am mais Lac de Guiers numéro 2 Lac de Guiers numéro 2. ba mu ñëwee ci stade bi moog Boy ñaa da nga xamni ki liggéey na. wa parce que yeen ak Boy ñaa yow sa communication sa communication mbeur ñëpp dañu jaamoon da ngeen ñëw corriger boy bi. wa mais wa mais wa mais li ñuy def li ñuy def mënu pas corriger parce que xam nga xam nga lamb dafa metti yow da ngay gis lamb ji la fa nek lepp parce que ben ben bi lamb ji bi làmb jeexee site bo doon ko mu jox ci bi lamb ji. Mhm. mais xam nga lamb d'accord far sax am mais da ngay gis lamb ji publiquement ñëpp contre ñun la. Mhm. ñëpp contre ñun la. Mhm. mais teewul xoolal def nañ ñu wara def. bëri nañ fulla ak fayda ak jom ba suñu borom ma ñu ndam. kon jour boobu par rapport ak tey soutien bi ngeen amoon mën nañ géejawaay yëpp daal di bootu seen ginnaaw ngeen am une préparation sérieuse daal koy waaj comme ni mu waree est ce que tey Lac de par rapport expérience bi ma am vécu bi ma am war woon jël la manière comme ni ko gars yi di waaj waaw mais daan mënul weesu loolu mhm. xam nga yow yow yow yow yow yow Boy Niang bu ne mooy xale Boy Niang mooy xale moo toll fu ne Boy Niang mooy xale moo mhm. toll fu di ñaan moo toll fu ne pour bëgg a lam bala ko mu bëre Lac la kon moom li li la dëggee def loolu war def rek. ñëw bëreeg moom ci fulla bëreeg moom ci fayda. dañ ko bi la dëggee lépp boo bëggee dëgg dëgg làmb jooju boo ko seetaanee da xam ne ci fulla bëri ci fayda. Mhm. kon nit ñi lañ bëgg quoi nit ñi la lañ bëgg laa bëgg xam ne tànn ko. Mhm. nit lañ lañ boo ñëwaat dafa préparé ànd ak ay xam la ñu préparé ànd suñu mbokk xam nga làmb ji li fa am moom mooy loolu ñëw bëreeg moom ci fulla bëreeg moom ci fayda jàpp ko daan ko. Mhm. gars yi di xaar suñu victoire ñu ne non nañu xaar dem di def benn xam nga recours xam nga kon nga xam ne lamb ci nu mu demee. Mhm. li fi ne kenn mënu ko wax quoi sérieusement parler. Mm. seen diggante ak actuellement mun naa bokk ci lamb yi nga xam te ne ñu xaar euh, parce que doon na combat bi tey dafa capital ci ñaari mbëri Eumeu am ci li mu jógee yéen tamit ngeen war a daan pour daal di daal di daal di gën a ci cour des grands nan ngeen di leen daal laa lay wax ci kàttanu yàlla suñu borom. combat boobu xam ban combat combat ko ci comme ni ngi ko waxee rek ni lamb jël jo xam te ndam rek ngeen ci sentu nan ngeen kon nan nan ngeen ci nara a xex ngeen ni ñëwee wala wala bëré wa xam nga xam nga lamb day télé période bo xamni ni ah, di nga préparer liste di nga di nga préparer xex ba ñëw ba ci lamb ji lamb ji lajul xex nga bëré mais limu la wax dal moy ciandum lamb jo lamb jo xamni ni rabbi buñ ko fekkee jàmm ak salam suñu victoire bu apa su ci côté côté bëree da ngeen di du ndaanaanu kat bu am ne tey dafa soxla jóge ci loo am ne safaan la yéen tamit xeexu la de gën ñu ko gis mu xeex xeex boo xam ne tay moo tax ñuy wax mais xam nga la xam nga xam nga mbëri mag yi xeex bi bëriwul léegi pratiquement bëri bu mu ëpp da ngay ñëw pour xeex xam nga gaay ñëw bëri mooy li mu rek lamb lu mu lu mu laaj parce que mun nga préparer xeex xam la ñëw waa indi bëri nga préparer bëri waa indi xeex mais sur tous les plans lu mu mën a préparer rek dañuy fekk ñun sax duñ ko duñ ko ci xaar dañ ko ciy fekk tey hmm. pour mu clair combat la boo xam dañ ko soxla parce que Eumeu Sène dugg géejawaay ak situation yi fi dem yëpp non combat la bu ñu soxla te li wax yëpp combat bu a métti la de guerre gisuma ko parce que boo xam dafa métti parce que la dëgg dugg géejawaay am lu mu fi def mhm. duggaat fi am lu mu def kon nag il fallait que waa géejawaay yëpp mobilisé taxu ci gën a la de guerre ñu jàpp Eumeu Sène daan ko Eumeu dañ ko war daan parce que gis nga li mu def géejawaay mënu dugg Géejawaay def li mu fi def xam laa duggaat bi ñëw gars ba bàyyi mu yóbbaat mënu nekk c'est impossible kon population Géejawaay yëpp il faut ñu góor si ginnaaw la da numéro deux jàppale ko mu dem bëri ama seen daan ko te yaakaar naa ne combat bu a soxla a soxla lamb mhm. la boo xam da ko war a nëkkoon kaa lamb la boo xam da ko war te ñu ngi ñaan suñu borom dafa ñu si ndam te te am naa jàkkaar incha allah rabbi laa la wax. Mhm. waaw. mais coach ñu bëri tey au sein de Guédiawaye di am impression que dañ naan dafa mel ni coach roon dafa xaw a rus la de guerre ba tey sax dañ jàpp ni tey coono yi nga ko war a teg doo ko teg wala parfois boo waree wax ak moom pour toucher ko mu daal réagir ni nga bëggee doo ko def loolu tontu ci loolu. waaw xam nga làmb day làmb. Mhm. mbër di nga nekk ba ci biir géew sax li ngay gis ak li nit ñi di gis du benn. Mhm. làmb léegi dafa metti te booy xool làmb léegi musique bi di ci am doole càndum nit dina dem ci biir géew sax yow li ngay gis ak moom li muy gis du doon benn. lamb dafa am réalité ci biir géew ci biir géew képp dugg rek mun a xam réalité bi. kon ça veut dire ngeen dem lamb nga wax ko dara ci géew bi lam jëfewu ko. non parce que problème mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy lamb day day day boo xam ni yow mun nga mun ngay conseil nit. ne ko lii ak lii dem ci làmb ji parce que waa ji adversaire bi bu jugee xam la da war a dajeek moom wala saa bu jugee da nga ko war a jàpp. xam nga nga ñëw ba ci làmb ji lu porte yëpp tëju. Mhm. man li ma la wax xam la nga xam ne làmb tëj na mais yow ngeen sax moom. Mhm. nga ni sa xam-xam bëri sa xam-xam. Mm-hmm. dégg nga loolu mooy problème parce que di nga di nga sax boo xam ne lii nii ñu yóbbu ci làmb ji mu échoué. Mm-hmm. mais yow mi l'essentiel bi da nga xam ne làmb ji tey lii la laaj. Mm-hmm. nga gérer ko avec boobaa expérience mbër moo ci génnee. merci. Ah.